alhamdulilah walsalaatu walsalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa asxaabihi wa man waalaah amma baad mbokki jullit yi noo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala di ko ñaan mu dolli xéewal ak yërmaande ak leer ci yonentub xeet wi ak ci ay saxaabaam ci képp ko xam ne topp na leen ci siraatul mustaqim gannaaw loolu nañu ragal sun borom tabaraka wa taala moom mi nga xam ne xam-xamam daj na lépp waaye mi tam daj na lépp nañ ko sant ci xéewalam yi nga xam ne sottil na ko doom aadama ci lu feeñ ak ci lu nëbbu ci lum seetlu ak lum seetlu wut te yëg ne xéewal yooyu limu na lool bari na lool itam ba mënee su koo takk sunu boroom tabaraka wa taala nee na wa in tauddu nicmata allahi la tuxsuuha xéewali sunu boroom tabaraka wa taala su ngeen ko jéemee lim du ngeen ko man kon kenn mënta lim xéewal yi borom bi tabaraka wa taala doomu aadama xéewal yooyu nag kuy dund rek yaa ngi ci biir léeg-léeg nit dana dem ba am xelam fàddu wala ak yëgam ba lu bari ci xéewal yooyu mën koo faat mu jàpp ne amatul xéewal ngir ay jafe-jafe yu muy dund waaye xéewal gi kenn mënu koo lim su jullit bi seetlu woon képp borom bi tabaraka wa taala ni mu tëree àdduna ni muy doxe dana yëg ne xéewalam ak yërmandeem yëmul fenn loolu mooy lan moo di dafa am benn règle générale muy tëriin woo xam ne mbir yi ci lay dox boo ko xoolee lépp yërmandee ko lal mu di sa dund gi li nga ci gën a tëlee ñàkk nga xam ne nécessité la ci dund gi loola mooy gën a yomba am li dund gi gën a aajowoo rek toujours moom mooy gën a yomb a am kooku yërmande la joo xam ne yemul fenn boo xooloon lekk ak naan boroom xam-xam yi gëstu ci yaramu doomu aadama yëg nañ ne ci seen xam-xam li yaramu doomu aadama soxla ci ndox soxlawu ko ci lekk loolu moo tax mën ngaa lekk benn yoon toog fukki waxtu ak ñaar wala léeg-léeg sax ñaar fukki waxtu ak ñeent vingt-quatre heures te doo lekkaat te du tax nga faatu waaye gis nga ne bis bu nekk boo àndeeg sa sago da nga di naan juróom-ñaari yoon wala nga naan fukki yoon wala lu ko ëpp ndax sa yaram lim soxla ci ndox soxlawu ko ci lekk kon ndox la gën a aajowoo nga xool yaar yooyu lu ci gën a yomb ndox moo gën a yomb am ci lekk ki mar foo jaar na may ma foofu ndox da nga gis ku tànk ndox jox la noonu la yàlla bindee xoli doomu aadama yi noonu la ko yombale itam waaye lekk nag léeg-léeg dana laaj kurkuri dana laaj liggéey dana laaj dugg dana laaj génn door a am loo lekk kon may nañ la tuuti temps boo xam ne mën naa mat vingt-quatre heures ngay gëstu loo lekk door koo am xëy na bala koo mat ah, nga am loo lekk waaye ndox mi nga xam ne yaram bi daf koo aajowoo lool te boo ko amul diir bu gàtt mën naa indi lor ci wér gi yaram gi foo jaar boo ne may ma foofu ndox ñu tànk jox la nga naan dem nga xool nag gannaaw bu lekk ak naan jàllee nga xool noyyi mi nga xam ne boo téye woon say bakkan loo yiwoo fukki minute boo ko amee yoo xam ne air duggul ci sa biir yaram génn génnaat nga génn àdduna kooku ñu ne la jaayuñu ko moom ñu koy jarul yit di ñaan fa nga taxaw rek borom bi tabaraka wa taala yombalal na la ko ndax sa dund loolu la aajowoo su fekkoon ne ku soxlaa nooyi léeg-léeg nga ñàkk ko di topp kër yi di wax ne may ma foofu jaww ji ma nooyee waay kon bu wëttuwul balaa caag mu mat fukki minute yoo xam ne doo may loo noyyi te kon faatu dikk kon li sa yaram gën a soxlawoo loola lañ gën a yombal kon borom bi tabaraka wa taala ne wa in tauddu ni'matallahi la tuxsuha su ngeen jéemee lim xéewali seen borom tabaraka wa taala du ngeen ko mën a lim ci règle générale boobu ci la tegu lépp nag foofu la sa lépp loo xam ne aajowoo nga ko noonu la la ko sa borom tabaraka wa taala préparé teg la ko tegal la ko fi béréb moo xam yëg nga ko moo xam yëgoo ko su ko defee kooka lan moo cay war mooy ak cant ak cant waaye nag xéewal yooyu li ñuy bari bari daf cee am xéewal yoo xam ne léeg-léeg nit ki dañ koy nax ba xéewal ga dem du ci jëriñu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadisu abdullah ibnu abbas buxaari génne ko daf ne ñaari xéewal a ngi yoo xam ne dañ ciy nax lu bari ci nit ñi ni'mataani maxbuunun fihima kathirun min annaas ñaari xéewal a ngi yoo xam ne lu bari ci nit ñi dañ leen ciy nax nax nit ki ci xéewal gum yor nu mu ngi mel ne ku yor gànjar gànjar buñ ko waxee mooy loo xam ne lu foor la lu am euh, valeur la mu yor ko te yëgu ko su doxoon ba for doj woo xam ne jamaa la mu ŋàbb ko xamul ni kii jamaa la yor muy dox ba àgg ci ku ko xam mu ne ko lii lu mu doon su ko waxee doone ku ñeme yàlla mu ne ko ak ah, kii de xànjar rek la bronze la amut solo mën naa la cee jox junni nga dem daal di koy jox junni mu jox ko doj wa dem fekk kooka moom mën na caa am ay million wala sax milliard kon kooku mooy ku yor lu seer te yëgoo ko keneen nax la ba jël ko nga dem ak sa loxoy kese nee na ñaari xéwal yooyu noonu lañ demee lu bari ci nit ñi ñu ngi leen ciy nax ñaari xéwal yooyu yan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne as-sihhatu wal wér-gi-yaram akuk jot wér-gi-yaram ak am jot ñaari xéewal yu mag yoo xam ne nit ki da ko yort bu yeexee du ko seetu lu bari ci nit ñi borom bi tabaraka jamono yi nga xamee ni mu ngi lay jox xéewalu yaa ngi ak sa gis bu leer naññi yaa ngi ak sa kattan yaa ngi ak sa ndaw yaa ngi yor mboolem kattan yi nga xam ne doomu aadama soxla woon a ko di ko jëfandikoo di dund fekk valeuru ndaw googu ak kattan googu mën-mën boobu yëgoo ne lii lu am solo la loo xam ne li tax sama borom tabaraka wa jox ma ko moo di ngir ma man koo def foo xam ne bu ëllëgee danaa mën a wàcc ci këru tiraanga ga muy àjjana ndeke kattan yooyu yëpp loolu dong moo tax ñu jox ma ko waa jëlal kattan yi yëpp wàccal ci àdduna am fa nangami at fexeel ba kàttan yooyu jariñu ci loo xam ne boo ëllëgee mën na laa tàbbal àjjana ki sàggan day yor kàttan yooyu du yëg ne ndekete lii nii la amee valeur mu ko def ci loo xam ne po lay doon ay caaxaan di ub ay làmb doon ay dawkat doon ay fokat ba siiw ca nit ñi di ci soow diggante bu gàtt kàttan gi nga yoroon duutoo ko am wér gi yaram gi nga yoroon nga jékki-jékki yoratoo ko sa xel door a delsiwaat nga door a yëg ñaa ah, man ndekete doole ji ma yoroon yépp kat tàmbali na di di jeex bët bi doon xool muy leer léegi su ma dee xool damay yëkkati kayit bi ba mu jege bët bi wala damay takk ay weer door a man a gis dama doon def bu ma xëyee mën na maa daw ba sori léegi su ma xëyee su ma waaxoo sax tàmbali di appaat di xéexat léegi kàttan yépp tàmbali na di soppiku néew doole ngi tàmbali di am nga door a tàmbali sa xel dellu si ne ndeke da ngaa yoroon valeur boo xam ne yëgoo woon ni mu amee solo sànq nga ko nag léegi waaye nag yàlla baaxe mooy koo xam ne xelam dana dellu siwaat waaye am na ñoo xam ne lépp day sànq ba kër ñu génn àdduna seen xel du dellu siwaat benn yoon kon mbir a moo xam ne muy wér gi yaram doomu aadama ji jamono yi mu koy yor yëgul benn feebar daanaka xéewal la boo xam ne mën na ko bañ a yëg wuute wuute ki foroon xeer bi mu nekk jamaa mu defe ne kii ciment la wala leneen waaye jamono yoo xamee ne dem na ba gis wér gi yaram gi tàmbali di dem foofu lay door a yëg ne xéewal la woon wala jamono yoo xamee ne xool na gis ñi ko wër ci ay jullit wala ay doomi aadama xool gis nañ soxla woo woon wér gi yaram googu kooku mën naa delloo si xelam ak waaraate la goo xam ne su doonee ku am tawfiq mën naa delloo si xelam képp ku dem ci hôpitaux yi xool gis doomu aadama yi dañ fay tëddee wala mu xool gis ci àdduna bi gis ay doomu adama yoo xam ne lépp lu doomu aadama aajowoo ci xéewali àdduna muy alal wala ay kër walla sax lu jéggi loolu lépp ci xeeti alal am nañ ko waaye ñàkk wér-gi-yaram a ngi ci feebar a ngi ci seen yaram ñu bëgg koo faj seen alal yépp mën nañ koo dundale te du tax ñu am wér-gi-yaram su seet loolu mel noonu kooku kooku lay yéege am na xéewal am na xéewal bu rëy kenn ci euh, doomu aadama yi dafa ñëw ci kenn ci xalifa ci xalifa yi jullit yi mahdi la wala haaruna rachid ci niñ ko waxee ci riwaaya bi ñàkk gu méttee métti sama ñàkk gi sama nàngam njaboot ga amuñu luñ lekk damaa def ni lima lima lim comme ni ko nit ñi defee tey bi mu àggalee mu ne ko santal yàlla mu ne ah alhamdulilah ala kulli xaal maa ngi sant yàlla waaye doy na mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko damaa bëggoon sa benn baaraam bi ñu dagg ko ma jox la mi at alf diinaar maanaam téeméeri junni diinaar ci jamono jooja ndax nangu nga loolu mu ne ko ah déedéet mu ne ko sa gis bii damaa bëggoon ñu dindi bët yi jox la lu fukk ca loolu mu ne ko duma loolu bëgguma ko mu ne ko sa tànk bi nag mu ne déedéet mu topp cër yi noonu di ko limal bu mu ko wax mu ne ko déedéet mu ne ko ah yow yaa ngi dox ay million nga yanu di dem ngay jàmbat ak ñàkk yaa ngi xéewalu sa borom tabaraka wa taala waaye danga koo yëgut kon foofu doomu aadama ji ngir mu bañ ku ko nax ci xéewalu wér-gi yaramam ngir mu bañ ku ko ci nax bu mu dem mukk bay dul situation bu mu mën a doon ci xeeti ñàkk ak yu mel noonu li feeg mi wér-gi yaramam li ko indi woon fii ci àdduna muy jaamu yàlla ak def lu baax ngir mën a dugg na moyen bi koy def mu ngi ak moom muy wér-gi-yaram kon li fii mu ngi koy am bu ko dara nax waaye nag loolu tekkiwut ne am naa wér-gi-yaram rek damay daal di toog loolu bay na waaye dañ laa digal it nga fàggu nag sàkku liggéey mën a am ndax am am boobu ci boppam it moyen la boo xam ne daf lay dimbali ci ngir nga baaxal sa nekk fii baaxal itam sa nekk ëllëg kooku mooy genn xéewal gi muy xéewalu wér gi yaram yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na lu bari ci nit ñi ndax dañ leen foofu geneen xéewal gi nee na mooy ak jot mooy ak jot xam ngeen ne nit ki dana nekk ci ay yitte yoo xam ne léeg-léeg mu xat ba àgg ci nu muy organiser mbiram sax ba teg ko ci yoon ba xam nan lay organiser dundam dana ko teg ngir programme bu xat ak yitte yoo xam ne yu bari la léeg-léeg mu dem ba tollu ab diggante am tuuti loo xam ne ak jot la koy jox jot googu nga xam ne bu yeexee toog loxoy neen lay doon foofu nax nañ fi lu bare bari ci nit ñi xam ngeen ne ñoo ngi génn ci jamono joo xam ne ñoo ngi toll ci jamono joo xam ne ñu bari ñu ngi woon ci biir école yi di jàng ba tey ñu ngi sax waaye soreetul muy jàngalekat yi muy doom yi nga xam ne dañ doon jàngi ak di wàcc ñu ci bari dem nañ ba jëmmi jamono am luñ tuddee vacances mu agsi ñu ne ah kon kat école bi tëj na léegi war ngaa toog ñaari weer wala ñetti weer yoo xam ne loolu dañ koo tudde loo xam ne vacances la mooy loo xam ne daal defatoo dara la nga doon def defatoo ko yow jàngalekat bi jàngaleetoo yow mi doon xëy di dem école xëyatoo dem école waaw ñaari weer wala ñetti weer yoo xam ne ci dundu doomu aadama dañoo jekki-jekki ne ko mu ngoog dafa witt defatoo dara foofu fan la ko nu koy def nu mu koy def fan na ngoog boo xam ne valeur la dundu doomu aadama rawatina dundu jullit benn bis kepp wala benn waxtu kepp lu foor la ci moom moo tax borom bi tabaraka wa taala mi ngi li ñi nga xam ne dañoo faatu muy wax ne la ñuy gaat nga mooy di wax ne suñ borom xanaa doo ñu dimbali delloo ñu delloo ñu àdduna rek loolu fa am lu mu gàtt-gàtt rek danañ ci mën a def aw yiw kon ñi faatu ba tëdd ci seeni bàmmeel tey lañ doon xemmem mooy ak a neexoon ñi bàyyi leen may leen deux heures de temps fii ci àdduna ba lañ fay jóge rek danañ fi liggéey loo xam ne mën na leen a yóbbu àjjana yow jullit bi ngay dox ba mu yàgg ñu ne la ah ñaari weer a ngi ci sa kanam yoo xam ne nee nañ defatoo dara foofu su fekkee da gëm ne ñaari weer la yoo waratul def dara nax yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon wax ñëw na mooy jot googu boo wëttuwul ñi nax la ci nax yoo xam ne dana dem te ci jariñ loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay jàngaleem mu ne nit ki na jiima góorgóorlu ba bàyyi xel juróomi mbir yoo xam ne na koo màng balaa yeneen juróom yi si defe ñëw juróom yii gaawal jariñu ci balaa yeneen juróom yooyu ñëw loolu mooy lan mu ne xayaataka qabla mawtik sa dund gii gaawal loo mën nga def ko ci balaa sa deegee ñëw loolu lu tax mooy dund gi ak dee gi dañoo mën a jege lool dañoo mën a jege lool léeg-léeg nit ki day xëy ànd ak wér-gi-yaramam balaa jant so mu génn àdduna te it nag jamono ya nga xëyee sol say dàll génne sa kër xamoo bis booba la am déet kon tey yaa ngi dund jimal a góorgóorlu ba def ci yiw woo xam ne dana la mën a yóbbu àjjana ëllëg kon mu ne sa dund balaa sa dee beneen bi ci des mu ne sixataka qabla saqamik sëg wér balaa sa feebar a ñëw mooy li ñu doon wax léegi ginnaaw yaa am wér gi yaram tey góorgóorlu balaa feebar a ñëw ndax jamono yu nekk kat feebar mën naa ñëw nit ki mën naa jóg fii feebar dikkal ku mu def benn analyse rek ñu wax ko musiba mu réeree ne ko yaa ngi yanu feebar sàngam mu am lu ko wóor ci ne kon ak dundam moom tàmbali naa jeex te jamono yi muy dox te defagul sax analyse boobu xamagul ndax mi ngi yor feebar bi mu dén kon doomu aadama ji yor wér gi yaramam di dox ci kaw suuf te àggagut ci télé ba ne laaj na jiima lu cëram yi ak xelam mi mu mën cee jariñu ndax mu am ci la ko mën a baaxalal fële mu jëm mu teg ca ne faraaxak wa faraaxak xabla shughlik sa jot balaa sa soxlaa ñëw jamono yi nga amee jot nga xam ne nee nañ la lii vacance la wala lii ab bis la wala ñaari fan la yoo xam ne xëyoo ci liggéey yi gaawal feesal ko dell ak loo xam ne lu lay jariñ ëllëg la mu teg ca mu ne wa shababaka qabla haramik sa ndaw gi balaa sa màggat gee ñëw gaawal ci ndaw gi nga jariñu ci balaa màggat gee ñëw parce que màggat a ciy tegu de mu ne wa ghinaaka qabla faqrik sa koom mii nga yor sa am am bi gaawal def ci lu lay yóbbu àjjana balaa ñàkk gee ñëw ndax foo gis am amit ñàkk moo cay tegu ñàkk moo cay tegu benn ci dundu nit ki mën nay dund am ba mu yàgg mu jekk-jekki amatul mën naa amit ba keru muy faatu waaye bis bu faatoo rek ñàkk na mooy lim fi bàyyi woon ak lim dajale lu mu bari bari bari bari wàcc na ko fi ñenee na koy doon moo xam liñ cay def waaye loolu moom jëriñu ko ëllëg ci àllaaxiraam doonut loo xam ne mooy la koy jëriñ dëgg-dëgg dëgg la nag ki nga xam ne def na aw yiw sàkk lu baax dundal ci ak njabootam jëriñ ci ñu ñàkk ñi nit ñi jëriñ ci ba mu génn àdduna bàyyi fi njaboot goo xam ne yar na leen ci ak njub ñi jëlaat alal jooju di ci jariñu di ci def lu baax loola la shakk ne yiw woowu day continuer mu di ci jariñu ba faw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne ni amal maalu saalix lil abdi saalix alal ju baax bu tegoo ci loxol nit ku baax nee na loolu valeur boo xam ne bu baax a baax la kon ba mel ne ñu baax ñi seen waxtu nan lañ koy jëfandikoo ci jamono yoo xam ne am nañ jot ñu baax ñu baax ñi day seen la ñuy tudde feet wala vacances vacances firiwul ci ñoom ne mooy loo xam fanaanee xoole ba asamaan set ci ay caaxaan ba asamaan setee nga yendoo nelaw vacances firiwul ci ñoom ay jataay yoo xam ne nit ñi dañ fay dajaloo di wax yu tekkiwul dara di jëw wala ñuy xastente wala ñuy yàq deri nit wala ñuy wax lu amut vacances firiwul ci ñoom waxtu woo bu jotee waxtu def lépp lu ñu tere jot na waxtu génn di taxawaale ci marché yi te wutoo dara waxtu di taxawaale ci yoon yi di ko xatal te jëmoo fenn waxtu yi lor jullit yu góor yeeg yu jigéen yi nga jàpp ne jot na ñu baax ñu day jàppewuñ noonu vacances ñu baax ñu vacances firiwul ci ñoom ne bu jotee waxtu toog ci kanam écran yi nag jot na di seetaan ay télévision yoo xam ne la nga cay gis doonut luy dolli diine doonut luy dolli ngor doonut luy defar ak jikko waaye luy yàq lay doon vacances firiwul ci ñoom loo xam ne itam nelaw yi kese lay doon bëccëg nelaw yoo xam ne mën naa dem bay faat waxtu julli mën naa dem bay faat waxtu jullik ajuma sax mën naa dem ba yiw yu bari yoo xam nit ki mënoon na ko fàggu ci addunaam wala ci alaxiraam mu romb ko jàll dem ba jural ko ak tàyyeel sax ba àgg ci bu waxtu dellusiwaat ci liggéey bi jotatee fekk na tàmmoon na nelaw ak caaxaan ak tëdd su ko defee bu dee jàngalekat du jëm ci njàngale ma akuk cawarte bu dee ku doon jàng itam du doon koo xam ne day jëm ci njàng ma ànd ca ak cawarte kon jullit bi fu mu fu ne war naa bàyyi xel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam responsabilité bi nga xam ne jàngale woon na ko mu di nit ki yowmal xiyaama balaa jàll faw mu tontu juróom yii ñu ko joxoon lan la ci def benn bi mooy dundam gi ci lan la ko def ba nga juddoo ba ba nga faatoo loo ko doon def sa ndaw ga ci lan nga ko jëfandikoo ba mu ràpp ba ak màggat dikkal la sa alal ja foo ko jële woon sa alal ja ba nga ko amee ba noppi fan nga ko dépassé sa xam-xam bi ma la joxoon lan nga ci jëf juróom yi kenn ku nekk dana ko ko laaj kon sa ndaw gi mooy dellu ci sa wér ga waaye mooy dellu itam ca jot gi nga xam ne joxoon nañ la ko ci lan nga ci jëfandikoo kon nit ñu baax ña danañ yëg ne responsabilité lañ am fii ci kaw suuf boo xam ne dañ cee war a taxaw moo xam ay waajur lañ yu góor wala yu jigéen ay yarekat yu góor lañu wala yu jigéen muy jàngalekat yi yëg nañ ne am nañ responsabilité ci gardeel ndaw ñi seen ndaw googu man leen a jubbanti ba teg leen siraatul mustaqim man leen a yëkkati bañ doon nit ñu baax ñoo xam ne xéewal yi leen yàlla jox ci seen loxo danañ ko mën a sant ci jëfe ci liñ leen ci sant muy lu baax ndax borom bi tabaraka wa taala moo wax ne su ngeen ma santee dama leen di dolli su ngeen ma santee dama leen di dolli kon responsabilité bi mbokki jullit yi rëy na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral na ko nee na kenn ku ne ci yéen responsable la responsable la boo xam ne ëllëg danañ ko laaj lii mu doon sàmm kenn ku ne ci yéen ab sàmm la boo xam ne danañ ko daan laaj li mu doon sàmm mu teg ca ne al imaamu raain wa masulun an raiyati ki nga xam ne mooy njiit la la ko tàmbalee ci njiitu réew ma ak i dagam kenn ku ci ne responsable nga boo xam ne danga nga taxaw ci sa kanam boroom ñu laaj la lii ñu la sàmm loo woon di la ko def loo lan nga ci def nga tontu sa boroom foofa imaam ja nga xam ne dafa jiite mbooloo itam moo xam kilifa diine la wala yilimaan la wala ban responsabilité la yoon ci diine mbooloo topp ci moom di ko déglu yaakaar ko ëllëg danañ ko taxawal ci kanam boromam laaj ko mbooloo mii la toppoon ne la yow lañuy ñuy déglu ana loo leen daan wax ana ban siraatul mustaqim nga leen tegoon su ëllëgee dana taxaw ci kanam boroomam tontu laaj boobu mu ne waa ji ci biir këram moom itam ab sàmm la diggante njabootam muy soxnaam ay doomam ay surgaam kenn ku ci ne am na lu ko war digganteem ñoom ëllëg danañ ko laaj loolu ñu la doon sàmmloo lan nga ci def mu ne jigéen bi sax ci biir kër boroom këram ab sàmm la boo xam ne ëllëg danañ ko laaj lii mu doon sàmm lan la ci def ba àgg ci sax surga bi ci biir kër gi moo xam bu góor la wala bu jigéen muy mbindaanu moom itam responsable la ci biir kër gi danañ ko laaj ëllëg loolu ñu ko doon sàmmloo lan la ci doon def kon responsabilité la boo kenn mucc ci ku nekk am nga lu ñu lay loo xam ne ëllëg sa borom dana la laaj loolu nga doon sàmm lan nga ci def kon ñu yëg vacance doonul waxtu woo xam ne bu ñëwee day mel ni nit ñi dañuy bër ci lépp bër ci lu baax ba mu des lu bon rek loolu moom nga bërul kon vacance du noonu euh, lu baax amul ak bër lu baax jamono yoo toll yu nag da nga war a jéem a yokk waaye jamono yoo xam ne da ngay dem ba mu yàgg nga taxaw ne li ma doon def arrêté na ci lu baax loolu amul julli amul vacance koor amul vacance koor yi ngàtt nga amul vacance julli ji ajjuma amul vacance dox ak bokk amul vacance ba vacance sax moyen la pour nit ki mën a yokk yooyu su fekkee dafa yoroon responsabilité di jàng ak jàngale ak dugg ak génn ba mu yàgg ñu may ko ay fan wala ay weer yoo xam ne mel na ni lam doon def defatu ko kon ubbil lañ ko bunt bi yeneen yi ko faatoon ci dox ak bokkam ak yeneen ak yeneen xëy na ci beneen eh, taxawaay muy beneen xutba danañ mën a jottali lenn ci yi nga xam ne nit ki moyen la pour mu mën koo def ci biir vacance am ngir eh, nit ñi mën koo déggoon ndax suñu borom tabaraka wa taala mën leen cee jëriñ kon daal vacance doonul waxtu woo xam ne waxtu boyal bakkan la lu ko neex def lu ko neex bàyyi waaye jullit bi ba mu xasee wax ne ashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu anna muhammad rasulullah engagement boobu mu jël ci kanam boroomam amatul yenn jamono yu muy toll yoo xam ne dañ naan ko may nañ la liberté ngay def lu la neex déedéet fu mu toll fu ne bàyyi xel yàlla bàyyi xel li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale looloo ngi ci xelam du ko bàyyi mukk muy libre di def lu ko neex lu ko neex itam mu bàyyi allahuma hayyi lana min amrina rachada allahuma axfaz alayna diinana wa sabitna alayhi ila almamat fa innahu ismatu amrina allahuma aslix lana dunyana allati fiha maashuna wa aslix lana axiratana allati ilayha macaaduna wajcal alxayaata ziyaadatan lana fi kulli xayr wajcal almawta raaxatan lana min kulli shar واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم وفقنا الى ما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال واذكروا على الدوام أن الله تعالى قد أمر أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وهو الصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المتقين ورحمة الله للعالمين وقال سبحانه في الكتاب المبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه وبارك وعلى آله وأصحابه أجمعين